fasalantewaat ay kóllëre ñun ñëpp ci keppaaru président Macky Sall loolu moo ñu fi dajale tey parce que avant tout ay doomi ndey lañ parce que ñoo bokk suñu région waaye ay mbokk lañ parce que ñoo bokk benn kilifa bu ñuy liggéeyal ñun ñëpp muy président Macky Sall kon jaadu na bu ñu demee ci yu demee nii yi yàlla dogal ñu nekk ci mbas yàlla dogal ñu nekk ci weeru koor ñaar yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne bu ci nekk war naa tax ñuy daje bu ci nekk war naa tax ñuy dimbalante alors li ñu fi dajale nag mooy dimbalante ci suñu biir mooy jàppalante ci suñu biir ku nekk xam ne ne du maire bi ci boppam waaye ku nekk jiite rek yaa ngi yoon njaboot goo xam ne ñu man lañ ak ñu manut donc loolu dafay baax néew na bari na ku ci nekk la nga yor ci xam ne mën nga koo génnee jëflante ceeg benn nit sax wala ñaan nit nga génnee ko fexe mu yegg ci ñoom loolu moo tax toujours dañuy faral di wax ne liñ gëm fii ci biir région bi moo ñu dimbalante ci social dimbalante ci social nag mooy ku nekk rek la nga man nga génnee ko def ko ca yàlla tax yàlla war naa tax ñu def ko waaye ki ñu yàlla boole tamit nga xam ne léppam social la bi mbas mi tàmbalee ak léegi nga gis matukaay yi mu jël ak li mu tasaare ci alal joo xam ne xam na ne sénégalais yi ñoo ko moom mu delloowaat leen ko ci seen biir kenn xamul ñaata milliards la loolu war naa nekk pour royteef pour mboole seen ñi nekk ci keppaaram di liggéey pour ñu jéem koo roy ci loolu pour topp ko loolu moo tax ma ne tey nañu daje ak région bi bu ñu paree commencé woon nañ di liggéey ci biir commune bi ci fan yi passé liggéeyoon nañ ci liggéey bu sori waaye taxul mu jeex maa ngi bëgg incha allah bu ñu yàlla defalee sutura tey ci ngoon bu ñu jeexalee communes yi nga xam ne ñoo ŋànk région de Kaolack bu subaa bu xatee ci ngoon gi ñu bàyyi ba suba ñu tàmbali pour jéem a xoolaat. naka la ñuy def ba population bi nga xam ne yàlla dogal toon suñu loxo yegg ci ñoom ñoom tamit parce que doon naa wax léegi ak gouverneur pour ñi nga xam ne yàlla dogal na yàlla wërsëgale leen ñu bokk ci liste bi nga xam ne président dana leen dimbale ñi nga xam ne ñoo ca des waxuñ ne ñu dañuy jox ñoom ñëpp waxuñ loolu. waaye du ñàkk ay benn benn yoo xam ne bokkuñ ci liste yooyu buñ mënee fexe ba ñoom it ñu jot ñu jotal leen ba li yàlla dogal li fi nekk bu jeexee ñu xam loolu yàlla dogal. dañ lay wax moo jaay jërëjëf. ndax gis na fi indi nga fi 2000 ton ceb indi an nga fi 350 ton bu ceb indi an na fi 2000 carton sucre indi an na fi 1000 carton sucre sucre itamin indi an na fi ivil 2000 carton indi an na fi carton 1000 muy 3000 man munuma jang tubab wa yakarna ko ko kalkine khalis bu beuri la kon loolu ku ko indi séddale ko ci jàmm yàlla yi te boolewuñ ci xaalis bi nga yëkkati ko di ko jox nit ñi kooku war nañ laa gërëm sant la. wax dëgg yàlla yi tamit ne danaa woo ñetti département tey Nioro boo demee quinze communes la Kaolack 14 communes fële xaw ma 11 xaw ma 13 ngeen ngi neew te ñun ñetti président conseil départemental yëpp benn lañ bépp président conseil départemental bu teew rek teewal nga ñëpp te lim ñuy ooyee neex ñu ñëw leen ma jàppale leen. jàppale la communes yi ngeen nekkal ndax loolu dafa am solo lam ñuy jàppalee nag bu ñëwee dana ci yegg loolu moo tax ñun ñetti conseil départemental yi daje nañ fi euh, ñetti communes yi ñetti communes yi bu nekk département yi bu nekk ak say commune ñoom ñëpp ñëw nañ. Euh, tey nag dañu daje fii ci kaw Kaolack ci euh, ootewu suñu frère muy le président Mouhamed Ndiaye Rahma. alors nous ñu ñëw ànd ak département Guinguinéo maire du département Guinguinéo yëpp ngi Nous euh, ñu ñëw tey ci suñu frère mu oo ñu encore je dirais encore une fois de plus pour li nga moi ni mooy pas ak esprit de solidarité Si ci li nga xamante ni mooy ñun ñëpp ñoo ah président Mohamed Ndiaye Rahma nag dañ koy euh, duñ ko gërëm dañ koy ñaanal rek parce que nit bu nekkee ak ay nit euh, nangoo jiitu ndax dafa metti Euh, nangoo jiitu ba pare nangoo boot ñëpp ah, jox ñëpp loxo man Mouhamed wax ju baax rek laa xam ci moom nañu jàpp nañu liggéey euh, de gën leen dem ci terrain bi gënal def lii gënal def lii loolu rek laa xam ci moom te lépp lu muy def pour lu jàppale président Macky Sall moo tax. di xam ne ñun de wéetuñu ci kaw Kaolack te ragaluñu itam ndax am nañu euh, Mouhamed ak ñoom. ñu ngi sant yàlla di wax alhamdulilah rabbil alamin yàlla mi ñu may ñu fekkee at yu bëri. teraanga bi Modou Ndiaye Rama mu ngi koy def ci population bu région Kaolack surtout nag ci département bi de Kaolack. maire bu nekk dina def waru garam bi lii ñu ko jox xanaa mu teg ci dara waaye lii moom dana àgg ci population bi bon euh, ñun suñ la gisee taxawaayu président de la république lañ lay c'est que mboolem lu mooy def su paree rek yow am na loo ciy dolli te fi mu teg tànkam foofu la teg foofu nga teg tànkam. ndax def ne maire population bi ñoo ko tànn teg ko fa bon moom du dugg ci commune mukk te jaarut ca maire mais yow yaa ngay def loolu bon ñu ngi la ci sant ñu ngi la ci gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax